bisimilah na fas yéene liggéey Sëriñ Tuubaa asalaamualeykum bokki taalibe yi murid yi ma bokkal Sëriñ Tuubaa bokki jullit yi ma bokkal diine lislaam maa ngi leen di nuyu man Abu Madiane di leen siyaare di leen balaq di tuubal yàlla saa borom di ko jéglu di sant di Sëriñ Tuubaa di ko gërëm di ko seereel jullit yëpp ak murid yëpp sama jotaayu tey bii nag maa koy def ci sama coobare di yéene itam mu doon ak liggéeyal Serigne tubaa di ñaan itam muy njariñ loo xam ni Sénégal gépp da koy jariñoo ak jullit ñi te Serigne Touba defal na ko ak liggéeyal Serigne Touba kese goo xam ni benn yàlla du tax ana li loolu moo di nun nun jullit ñi dañoo bokk mën naa ne nun waa Sénégal sax dañoo bokk menn sàq moo xam ni nun ñépp ca la suñu jël di bàyyi ko ah, te lakkee wala mu yàqu dootu ñu am jël mukk ndare bu dañ ko yalwaane wala ñu saraxanu ko sàq moomu nag dafay loo xam ne ku seen lu koy lakk wala lu koy yàq te man koo man koo dogalee wóoroo caa nekk kenn soo ko mënta dogalee war ngaa yuuxu ba fa sabaat jam ba ñu nga bokkal sàq mi xam ni ñëpp war a jóg loolu muy muy moom lañ tudd actualité te réewum Sénégal toll ci gannaaw loolu ci wàllu diini lislaam ji ñi ma ci bokkal kër Serigne Touba ñu di murit dëkk bii nu nu ne muy Touba di suñu capital di faggu teefub Serigne Touba daya bi mu am ci biir Sénégal ci cosaan ba léegi ma leeral ci tuuti. bu loolu jàllee toolub Serigne Touba bi mu fi bàyyi batale na ko ñun muriti Serigne Touba yëpp muy alxuraan ma wax ci tuuti lool li ma njëkk a wax nag muy muy sàq moom mu wax muy senegal sunu borom dafa wax ni wa maa kaana rabbuka liyuhlikal qurى bi sulmin wa ahluha muslihuuna maanaa sunu borom du alak ab gox wala dëkk wala réew te fekk waa réew ma am na ñu nekk ci seen biir ay benn benn yu yu yéwenal di defar islaax googu nag suñu borom jagleelu ko góor wala jigéen wala mag wala ndaw wala sëriñ wala donga dani am ré am am réew wala dëkk walla pénc lu ñu moy mooy yàlla ci ay toojaange ba yàlla nar leen a alak caalaak yéen wu ko soob daa fekk suñu boroom xool na ba xam ne amul kenn ku fanaan ci dëkk ba ku koy defar moo tax nag mooy sawara bi ma wax ni bu tàmbalee eh, nit ku ne war nga caa wax ñàkk gi mu ko ñàkk a wutal aw xeet nag moo tax ma di ci wax ah, fi nga xam ne fi la tollu nii ci jàngoro ji ak jéem a jiñanteeg moom ku ne pexe ma ca am yaa ngi ca waxal naa ko barki démb ci benn site defe naa Fallou Ndiaye mi yoroon site ba waaye leeralaat gi tey dari ni yàlla dafa dogal réew mi dul attewu ci lislaam ci lay euh, laïcité lay lay attewu ñu samp président dénk ko ko euh, moom xam sart réew mi nun citoyen yi ñu ci bari xam sart réew mi mu mu joxe woon décret fan yii ci ginnaaw ci li ko yoon may joxe ay atte bokk na ci atte marché yi nga xam ne dina tëj heure bokk na ci atte ya mm, jumaa yi ñuy tëj bokk na ci atte ya huit heures ñëpp tëri moo waxal ne bu amee fukki fan ak ñaar dana set ba xam loolu day wéy walla du wéy fukki fan ak ñaar nag defe naa ñetti fan a ci des tey la juróom-ñeenti fan tey jii tamit di àllarba mu war a dajale assemblée bi ñu wateel ko loo xam ni day day wéyalaat takk loxoy député yi ak ministère yi benn baatam rekk di dox te baat bi itam nun du ñu xam lu mu cay ràbb day jekki-jekki rek wax ko ma bëgg nag képp ku kuy dégg li wax moo xam ci xeetu citoyen grade bu la ci yàlla jox ñoo xam ni man li ma tax di wax rek weesu sàq moomu laay bañ mu lakk euh, te itam noonu dañu di ay baadoola di ay siwil waaye dañ fay yàgg juróom benn fukki at ak lu topp ku ko juddoo ci réew te mosoo génn senegal boo àndeek ak sam xel lee nga xam lu bari ñu yàggit ci kaw gi diggante bay ak sàmm kajoor ak bawol dañ koo miin loolu ak saalum sunu toog benn barab mënut a teelee xew ci réew mi ñu di ko xam nu bëgg ñu xam ni bokk na ci li ngay xam ni saa bu ko yàlla xiiree ci joxewaat kàddu bu ma nee ànd ak tuuti ci woyofal yërmandeem lay doon yërmande jooju dafay loo xam ni bii moom rek a tax ñuy am yaakaar ci nit ba di ko fal tayit moom la sëñ Tuubaa boote woon mbooloo yi ba ñëpp wuy si ko ku fi ma a nekkal suñ tubaay itam buurub addina boo ak jamonoonteel fàttali ko ko loolu Senghor bi muy bàyyi réew mi siem laa di doon di di wax euh, moom di di tàggatoog moom di dénk Abdou jëf ci ay cax daf ko ne suñ tubaab yi dafa ñaanoon boromam mu yërëm mbindeef yi irham jami la waraa la wax daal ne man mii nag ooma darajey ñaan yàlla mu yërëm mbindeef yi waaye danaa am fulla ju toll ni kuy yërëm mbindeef yi di leen dimbali may wax ak yow di jëflante ak yow ku ko mënut ma bañ a jotee yow dara feeg maa ngi dund mooy sëñ Saliou bi mu doonee xalifa sëñ Tuubaa màggal gi mu njëkk jëkk jëkk doon xalifa xasida yaa rabbi eh, xasida rabbi maasur asaana googu yi lañ lañ ñaane ak farij bi yaay Mustafa an ummati daa de maa gii sëñ Tuubaa yërëm mbindéef yëpp néew na loolu sëñ Saliou tëj ak ñaan te téyewu ko yaa maalikal mulki yaa man jàlla xan xawee din yu mujj yi nga xam ne ci la doon tàggatoo ak jaam yi neewoon na man du ma fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal te yàlla moom i jaamam te ciir ma di leen yore kon nag yërmande jooju ginnaaw sabab bi bu wàccee ci yàlla ba noppi euh, divisé ko ba ku ne am ci wàllam ci loxol président réew mi la ko yàlla teg ci lii ñëpp bokk yërmande jooju bëggoon naa képp koo jote ca moom ñu bàyyi loo ko ko xel bokk na ci loolu mooy euh, huit heures fii nu toll teel na ci jant bi ndax ñu ngi jant baa nga sol léegi sept heures vingt-deux te bu ñu agsee ci koor gi dana jege 7 h ñu xool nag diggante ndogu ak ak ak ak julli gee ni mu mel ak naafila yi nii ñi daa def ak tàmm gi ñu ko tàmm ak ak ak tàngoor wi ñu tolloolee tam nga xam ne fii ne euh, saison bi gën tàng ci la ñu mooy avril mai mooy bi gën a bi ci la gën a tàngee ba tax na bu ko bu fekkee du lu muy mën a daal di bàyyi ci fukki fan ak ñaar yi mu njëkk a wax da ngay dolli dara yoonu ñaareelu bu koy def lu mu ko gën a puus. ba ñi xam ne dañoo guddee wàcc mën a ñibbi eh, nit ñi mën a mën a reer kenn ku ne mën a am jàmm ku am soxla soo xam ne bii guddi nga ko war a dox itam ndax du caagéen ku ne la ngay dox bëccëg nga ko mën a dox eh, la mën a dox dox loolu xeetu yërmande la te jaadu na te itam ñàkk koo def mënut a wàññi ci wér digg dara loolu bokk na ci loolu ñaareel biit mooy transport bi war nañ cee waxaat ndax nit ñi tànk gi metti na ndax koo wax ma ni wata yi nanguwul maa yóbbu wata yi li leen di yebe mënu leen may gasoil loolu itam faggu gi ak fegu gi baax na lool waaye nit ñi yàlla rek moo leen mën a sàmm ak ñu góor góorlu waaye sart yooyu day diis nii waaye xit ci ay mbooy ak door daw dàq yéeg miirub jàmm ak bañ ko la jàpp ak lépp gi ci te am na ñoo xam ne bii bu ñu doxee juróomi kilomètre liggéey yi suba ñu defaat ko ginnaaw suba ñu liggéey li defaat ko danañ tooy te ay bay ay góorgóorlu rek a fi ne Sénégal bu ñu ko defee ñeenti xaaj benn bi mooy bi nga xam ni moom wóor na ñëpp ne gii yàlla te te xaaj boobu boo ko toppee bu dee ñaari xaaj benn bi ci gouvernement bi la ñuy liggéey nekk ay fonctionnaire beneen bi mooy mooy commerçant yu mag yi ak ak ak ak ak kilifa yu diine yi nga xam ni dañuy bari ay addiye te kilifa yu diine yi liñ boot ci lu ñu war a ci lu ñu war a dundal lijjanti ko ci ay ngénte ak i njaal moom mënuñu ko booleeg am capital bu ñaareelu ñaareelu âge bi mooy ñi toll ci liggéey nii te te doo romb ñeent fukki at ak juróom te ñoom lañu lañ tudd ay yadawi yoone ci arab ñenn ñi ay ay dañuy maçon ñenn ñi ministre bi lañ doon ñenn ñi ministre bu waa la ñuy doon ñenn ñi ci marché yi la ñu nekk di jaay ay jën ñenn ñi di làqar ci kenn ku ca mën a régler dépense fukki fan ak juróom yi taqaloo teg ko fi benn barab te bor amu ci amut ci ñaari xaaji senegal xaaj bu njëkk bi wax naa ko ñaari xaaj yëpp yëpp yëpp ñoo bokk li ma wax kenn ku ci ne yàlla suturaal na lay na nga mën a am njël man a boot boog benn borom kër amoo yees ñaar ñaari mën ngaa yor sa bopp ak ak ak beneen kër bu mel ne waaye kenn ku ci mën a boot ñetti kër amul xaaju bi moom dañoo ne ci biir nation bi waaye ay gone lañ ak i jigéen ak ñu lont dañ leen di yóbbaale faw tawoo yàlla ni bi ne dina loolu nag su àndaateeg nit ñi daanaka duñu liggéey li ñu liggéeyee ko si néew bu ñu leen pay danañ sonn coono boo xam ne daanaka dañuy xelu di ñibbi loolu itam li ci mën a ànd ak yërmande jotewut ak wéré di dara mbas mii ñuy nuróo léegi lii mbas maa gën a diis lii fuuf gën koo metti gën koo ñàng gën koo ñàkk sutura waaye mboolem kum fekkan wala nga jàng arsif yi amoon nga xam-xam ci ne nit ñi dañ daa liggéeyi lépp dañ ko bàyyi woon ci loxol yàlla di faju tey liggéeyi kër Sëriñ Tuubaa gii diirub lim fi ne mbas maa ngi fi waaye dañ daa liggéeyi dal la nit ci biir kër gi dal la nit ci mbedd ba waaye lenn lu lu suñ tubaab daa def la lu ñu bàyyi du daaree kamil ja du nodd ga du julli ga du marché ya daanañ moytu nag bu ñu waree raxasu raxasu bu ñu waree ñakku ñakku lu ñu war a def def ko waaye nag loola de mooy mooy la ca war a doomu aadama waaye nag dem ba wakiilu gi ñu war a wakiilu ci yàlla jàpp ni maanaam ñëpp nag dañoo war a jóg kenn dootu liggéey ak ni Sénégal mel réew yi ñu bokkuñu réew yooyu bokkuñu am na réew yoo xam ne bit ba mën naa yor doomi réew ma juróomi at am na bit sa yoo xam ne bi seeni waroom mën nañoo yoral Quraan nit ña yoral leen yoral leen paj ma yoral leen ndugg ma te ay waroomi alal la nekk yoo xam ne bu ko gouvernement ba yorut itam kenn ku ci nekk mën ngaa yor sa bopp juróom benn weer yoo xam ne bii doo soxlaal gouvernement bi dara Sénégal bi bit bi mënut a yor Sénégal juróom benn weer bit si bépp buñ ko séddale woon mënut a yor senegal juróom benn weer te li ma njëkk a wax mooy dóor dàq yi mi ngi fi te li ma nii bokkut ak nag sàmm yi nga xam ni jur gi nuñ koy def bu ñu tëddee ci kër gi jur gi nuñ koy def bu ko dongay tërbiye yi boo demee xel koom boo demee tiib boo demee Daaru Musti dongay tërbiye yaa ngi ne xas nu def seen tool yi na yañ daay liggéeyee koy def matériel ba nañu koy def te te ruuj a ñëw mu waa demee buy dee dana fekk ñuy ruuj nawet bi di ñëw dolli ci waa loolu ndax mu ta suuraale moo tax nag ginnaaw moom kàddoom dafa diis te amul ku koy delloo ginnaaw te amuti député député yi ñu naa dañ koy signal dara loolu duy député ndax ginnaaw moom kuy dem ku ne danga naa maa ngi dem signal la gouvernement bi sama département ma fal nangam moom lañ manqué ca département ba nga wax ko sama morom wax ko sama morom wax ko le président ba bëgg nga xool ko bu dëppoo la nekk sa département nga ànd ca bu fekkee am na ci lu ñu war a soppi nga di lii de baax na waaye teen ci ba ne dolli lii loolu wax nga bëgg bam ba mu signé ko loolu moom daanaka jurul mbooloo ma sax dafa dem ñetti député rek doy na ci waaw wala ñu ne ko jurutul ngay wooy ay député defal li nga bëgg a def sëñ laa danoon ay Sénégalais lañ te am nañuy xel man du ma nit kuy kontar buur wala may wala ànd ak buur damaa wax li nga xam ni ku ko dégg da xam ni ci digg bi laa jaar xalaat yooyu nag moo la moom laa bëgg fu fi nit dem te mën ko faa jottali ba ci kilifa diine yi ginnaaw ñoom ñoom la gouvernement bi waxal du wax ak noonu ñoom ñëpp ñu bokk xam ni ñooy suñu ndey ñoonu boot te lu ñu yuxu yuxu duñ mën a génn seen kër yi donte benn kilo ceeb fa nekk nag ñooma koy bokk waaw te tool yaa ngi ñëw te mënees su ko ñàkk bay loolu lépp nag ginnaaw moom bu xisee bay ni décret ak dellu ginnaaw du loolu mat naa digg mooy li li ma doon wax ci actualité bi xam itam ne lujum saison jot na weeru tubaab bii ne bu jeexee day tàmbale di di di di mat a génne te mënee su koo rënk mënee su koo denc loolu lépp ay xalaat la laaj te te bu mois de mai jeexee mango day daal di ñor. réseau Tambaye réseau Casamance ak bu kees li ñuy yor ci mango kenn xamul nu mu toll mënee su koo rënk mënee su koo galasé kenn du xam nañ koy def loolu nag war naa tax kon bu nit ñi mun di déplacé it marchandise moom wut wu ñuy jaar ba muy déplacé marché luuma yi bu ñu ko mënta ñàkk a tëj itam ñu dimbali ñi nga xam ne ak jur lañ yor di ca jula ba ku cay bëgg a jaay mën a am koo jaay ak yoon wuñ ko mën a jaarale waaw ndax kat lii li muy métti li muy am am te réwut hôpital yi ñu ngi faj pompiers yi ñu ngi génn gendarme yi ñu ngi génn kon nag li nga xam ne ay lawaasib la moom mooy fardu xëy ni nga xam ne nit mënu koo ñàkk moom warees na koo sikkar ci bu ñu nuppee nag bu nit ñi dee toog ak bu ñuy dem ñoo xam loolu moom waaye daal takk lépp mu nekk benn bolok xam ne bu jaay du añ amul kum jaay ki xam ne bu jënd du añ amul kum jënd xaalis moom day génn ci loxo rek door a faj soxla man loolu moom laa ci doon wax dëkk bi itam dafay dafay dafa toll nii waxtu wane nit ñaa ngi wax Touba ci Sénégal la bokk loolu mosuñu ko waxaale ñépp xam na ko waaye nag bu mu nekkee ci biir senegal ba noppi itam nañu xam ne senegal kenn ku ne yaa moom sa kër li feek defuñu lu jar dem tribunal buur wuur faa teg tànkam di sàkk lu mu fay wax bu fe boo xasee ànd ak sarti réew mi di def li waa réew mi laaj xuloo amu fa xeex amu fa yaa moom sa kër Tuubaa nag kër la kër la goo xam ne borom daa am titre foncier moom ay kayitam lenn li jamonoy Cheikh Moussa la jenn lenn li jamonoy Sëñ Saaliw te ñu moom dëkk bi xam nañ loolu te ñëwee yi ma bëggan ñiy wax ñuy xam ni waxuñoo nit ñu yeewoowut ay waroomi xel yoo ànd ak xam-xam te mag te yàgg fi ñoo fi ne te xam lu jaaru tu mën caa jaar suñ tubaab ba mu fi nekkee ba léegi fa mu tàmbalee woon ak ak ak tubaab yi xam nan ko ba ñu nee bisimilah yi da leen leetar ba mu leen njëkk bind da leen ni yi maa ngi yéen bokkuñu lu ñuy def yéen addina képp ci ngeen ne lu mu yàgg-yàgg du ngeen ci dajeeg man fenn duma ma du ma wee ci àddina ma ci fekk duma ma ci ànd ak kenn duma ci yónni kenn kon seen xel mën na cee dal man li ma ne nekku leen ci mbiri àllaaxira ci laa ne ak saa borom amu leen ci soxla xamu leen ko kon da ngeen a man waaye bu bu ngeen jàppee ci lii ma wax lu mu yàgg-yàgg dara du ko dindi bañ ca jàpput ngir fiire ko mbooloo mi bañ demee ba ca ba ca mujj ba bañuy bañuy def maslaa xam na ni li mu leen waxan ci tàmbali moom li mu leen mujj wax ñoo bokk léegi nag boobee nga xamee ni ci bi ñëw fii rabb li mu fi rabb fi ñi mu fi dëkkal taawu ko ci bëtin wi ñu ko batale li fi batale ba mu agsi fii mu agsi danoon laaj ñu xam ni dëkk bi ci sarti réew mi lay dox waaye daa am borom te borom dafa ami bokk su mu taxaw mii fi nekkal suñu Tuubaa dafa ami bokk bokk yooyu ami bokk dong yi wi ñu ni ci seen biir kilifa yi diine yu naw ne fi kilifa yi diine yu mag ne fi nit nit biir yu kenn xamul ne fi ay kàngamit ne fi te ñooñu am na ci ñoo xam ne duñ diglu rajo am na ñoo xam ne duñ xool télé am na ñoo xam ne duñ jàngu journal am na ñoo xam ne lii xew ci réew mi toog fi benn barab ñu informé la ko ba mu leer la nañ ñi kenn amatuñ jotam te ñoom waxtu wu leen neex la ñuy dox waxtu wu leen neex la ñuy yónni nit ma bëgg autorité bi ginnaaw man xam naa ni loolu mooy li am te ñaare bu ñu def bu ci njuumte amee xamuñu ko woon dong la lay jur li may wax nii du du lu ñuy revendiquer waaye dafa dafa mat a xam ndax toujours nga gis loo xam ni dañuy dem ba ci yàgg ñun lii kat xamewuñ ko woon nii ma bëggoon kon ñu xam ne dëkk bi naka jëkk Sëñ Saaliw waxal na ni kenn du ko bay démancelé police bi mu fiy ñëw Sëñ Saaliw a neex waaye du jaay ni mbooloo moo état indi ko fi Sëñ Saaliw la neex moo santaane it ni dëkk bi laaj na ñu dimbali ma ci waaye nag buñ dikkee nañ ko wéer ci sart yi li ma leen di waxal li ma leen di wax ba ñu dëkkee sëñ bi moo leen wax fa mu bëgg ko fa def police ba wax leen sart ni mu bëgg ko ko fi nekke loolu du kumpa Ablaye Ablaye Wade Macky Sall mit loolu du kumpa ndax boobu mooy ministère de l'intérieur xam na loolu euh, euh, gendarme yi bi leen fi indi seen laaj moo leen fi indi ci coobareem moo lu ci ne dossier ba suñu laaj ba ca bind moo ko ay rakkam ak dossier suñu saa yu ba lam mu ca bind mooy nañ fi nekk fekk moom ay soob bu leen sooban tey du fi du fi fanaan loolu it dafa ma a xam loolu nii dafa ma a xam koo xam ne ab dëkkam la yor loo cay def ya da lay ñaan nga dimbali ko ca boo boo ko ca dimbalee ba mu ne fii doy naa yem dootoo sañ a jàll boo ko cay dimbali war a xam nag ni du caagee nag ni bu ñu waxee rek ne lu ndakaaru wéy ci lañ war a yooyu déedéet ndax ndakaaru ña nga fay jaamu leneen lu dul yàlla yeneen ni diine nga fa te département département Mbacké bi képp mooy département boo xam ne mel noom yàlla lañ fay jaamu di suuf jaamu leneen maa ko fay jaamu leneen da nga koy nëbbu waaye doo ko wutal ab ab jaamu waay addina bépp benn dëkk bu ci toll ni Touba boo xam ne mennum yàlla lañ fay jaamu ilaahun waahidan wa nahnu lahu muslimuun amut ci addina fur Touba mbaa république islamique yee koy am waaye amut ci ci li li France colonisé woon loolu nag kon dafay laaj ñu di ko xam di maslaak nit ñi ndax ñoom li ñu ni moom lañ jàng bu dee dëgg ñoom gendarme yi li ñuy jàng bu dee dëgg ci ñoom war nañu jàng enquête nit boo ko ne sut wax ak mu tontu la war ngaa xam ba xam kii jar naa jàpp wala jar ta jàpp waaw jigéen ñi xam ne dañuy matu te amaana bu ñu dematu doo ko yëg dañuy def rek fëgg benn wata wata bi amaana am nay këyit amaana amu ko amaana xam nañ ko amaana xamu ko waaw kooku bu bu yàlla dogalee muy muy def signal dansé ba yóbbu ko buy dëpp dajeeg ñu bokkut ak ñoom di Canada yàlla nan lay def wala dafay fanaan ndax loolu mat a xalaat koor gii di ñëw ak nit ñi nañ tàmmee doxu guddi ndax loolu mat a xalaat nit ñi seen fit yi dem na lool te ñun ñëpp bëgg bokk bëgg mu baax ginnaaw yàlla dogal na lépp lu mu ne moom lañuy def si mun taxaa lépp lu man ci digle ni nañ ànd ak ñoom ca loola ña ngi koy def te si mun taxaa moo dox suñu diggante ak ñoom lépp lu ne état mën a yenn fu si mun taxaa wax ni nañ fa yem fa la ñuy yem murid yi duñu révolté duñ sànni xeer duñ lànk moom it na sëdd sëñ bi ci taalibe yi te xam ne sëñ bi taalibe yi la am amul leneen waaye fal googu daal ak ak ak àq dëkk bi ak ak ak ak ak ak ak ak ndax ja gis nit ku ànd ak soxnaam di dem nga ci góor gi ma dem nga téye sox nga wàcc góor gi soxna sama dem nga téye góor gi ak ak ak ak ak biñ koy doon tàmm di déri déri diñ ci doon dégg loolu lu muy jur te li tax ma di ko wax nii man dalu ma dalul saa mbokk te ñaanu yàlla mu dal kenn ña koy def it waxuma ne dañoo réew waaye damaa xam ne naa dem ba ñu laal koo xam ni dana waral si mun taxaa ne bu fi kenn fanaan nañ bàyyi lañ doon def te su boobaa du ko jarate te li may wax nii biir dëkk bii am na murid yoo xam ne bu ñu ko déggee danañ xam ne tax may wax du ma ci nag tudd ay tur loolu daal man moom laa ci doon wax suñu diggante dëkk bi euh, tool bii fi suñu bay nag muy alxuraan ji li tax ma di ci wax moom dafay loo xam ni lu gudd la ci histoire waaye nag lu mat a jàpp na mm, sëñ Saaliwu mii mas na xëy ak suba mm, sëñ Seex Jaxate ne mu ne ko sëñ Seex Jaxate Seex Jaxate sax la ko wax mu ne ko Mbàkke mu ne ko si am sëtu lu mu waxati wan ni moo taxan Sëñ Tuubaa samp dari kaamil ji mu ne ko dafa wax ni sëñ sut nee na Sëñ Tuubaa ba muy samp dari kaamil ji defe naa Jolof la wax xawma gànnaar waaye leen la ci wax waaye ba mu koy samp daal dana suñu borom da ko ne am na balaa bu réeréeréeréy buy waaj a wàcc ceeb bi sëñ bi sëñ bi ne ko loolu dama ko yelool jaam yi sëñ bi ni ko suñu borom ne ko loolu doyut mu ne ko daal bu fekkee mën nga julli gune nga gungee ko ëpp kaamil mën naa ko mën naa koo bàyyi waaye saa bu ko bàyyee ma wàcce balaa bi suñ suñ Tuubaa nangul ko loola suñ ah, Saaliw daan daan ni bu ngeen demee nag looloo tax ma bëgg sama daara yi ngeen fonk njàngum kaamil mi ngeen def bu ngeen jëlee takkusaan ba noppi daan ni suñu laat kat waxat na fii ni sëñ Tuubaa ba mu sañ cee dëkk bi léegi juróom-ñaari jàkkaa nga fi waaye bis bu set ñu jàng kaamil suba ak ba mu ngoon ak ak bu suba bu ñaari suba ak bu tisbaar ak bu takkusaan daal ni génn gut dal di balaa boobee nag moo tax ñu bëgg nit ñooñu di jàngee noonu yi sëñ Saliou nag bi muy defaraat daara daara kaamil njaareem ji ba bàyyi Abdou Samad Sylla moom suñu jëmb Sylla moo jiite daara ja man miit la ko wooloo woon naa ko wooyee ba ñëw sëñ bi woo sëñ ma sëñ Mañaaw Jaxate mi nga xam ni maam Mbàkke Jaxate bàyyam mu jox ko xaalis bu bari ak pep ak ceeb ni ko joxal ma ko waa daara kaamil njaareem daal ni daal di nañ ma jox nañ ma bindal ña fa ñu bindi ko indi mu am ca ñum dindi seen tur mu am ca ñum dindi seen am ñeneen ñu bind seeni tur def ca daldi ni ab kaamil ñaar sax ma nañ koo jàng bu baree ba bari ñeent waaye Sëriñ Tuubaa moo ci jublu ñaar fukki nit ak juróom-ñett dajaloo jàng ko léegi ñett yooyu ku ne daa am fooy tàmbalee am fooy yem looloo lañ ca taamu waaye bis bu set nga manqué bis bu set nga am Tuubaa toog fa bis bu set nga damay dem barab kaamil bi moom daa laaj ku koy def ku ne da muñ say soxla sax ci waaw loolu ndax xel xalaat na ñu dem ba waxtu bi ñu daraa xew ba tax xel de xalaat naa kaamil boobu nañ seet nañ koy def wala nañ koy def ci whatsapp wala da ko leen toog këram jàng ko man wax naa facture bi ci suñu sali wax loolu la wax dani suñ tubaab moo ki taamu ñaari fukki nit ak juróom-ñett dajaloo jàng ba tubaab ya woo ne ko xam nga nan résidence surveillée la résidence surveillée waaw waxal ñi nga mun a ñàkk àndal dani ñi jàng bi rek laay àndal Cheikh Moustapha Mbacké bi mu fi ne te te toowugut benn capital di tourner Sénégal fu ne mu dafa dem saa bu xëyee pick-up bi yóbbu jàngkat yi dañuy jiitu ba ne penasam bi door ca topp fa mu fanaan ñoo koy bokk fanaan fa ñu xëy jàng ko waaw loolu ndax warees naa wéer rek ci ay science euh, lii la gouvernement bi wax lii li waa dina bi dox ba ba ndigalul suñu tubaab loolee ñu ñu ay jàkk yu ñuy tëjëg yu bi loolu de bëgg naa ñu bàyyi ko waaw dama ne sëñ Mamoune Bousso mii di jiite ci jumaa yi bi mu fi tàmbalee jiite yàggut kañ la bi suñu abi yu màggatee suñu abi bi bi muy bi muy jiite lu ko waral suñu Abdou Khadir fi newut suñu Abdou Khadir muy jiite lu ko waral suñu Fallou fi newut waaw léegi ñoom ñii fiy jiite dañoo yaakaar dañ fiy sax waaw suñ doon suñ lono yii fi ne ñu war a taxawu gone yi bañ yoraan alxuraan ga suñu Tuubaa bëggan ko ko yor bu ñu waxee bañu ba ñu bàyyi ko waaw ñoom ñii bu ñu demee ba mënatuñoo dem ca jumaa ji wala ñu faatu ñun ñun ñii fi nekk suñuy doom war a ñoo ñooñee mu nekk benn silsila ca dam daa doxee ba léegi soo waawaa lu fi sës dañuy bàyyi jàng alxuraan dañuy bàyyi jumaa ji wala dañuy dem wëri ku koy ku koy def waaw loolu nun ñu bokk dëkk bi te toolu suñu tubaab bii ñëpp ñu ciy ñu ciy bay ndax loolu mët a seet si li may wax ci suñu Muntaxaa moom ak ñii laa koy tàmbalee ak ñi mbokkal maam ñëpp kenn ku ci yor teraanga yi gouvernement amul kenn ko ci xam ne fa nga toog gouvernement tax nga toog fa amul teraanga yi suñu tubaab la ñor moo leen fal te ku ma ko ci càllale gi booy boo booy gën a addina lañ lay tàmbalee wax sëñ bi wala ñu naan la soxna si boo amee juróom-ñaari tàmbalee amul turandoo waaw teraangay suñu tuwaa jooju ndax ñun ñëpp waruñoo taxaw temm ci lépp luy tax mu ñàkkat dox ñu def ko muy suñu yitte lan moo tax ma di oh, rajo bi moo wax ni euh, préfet Dagana na daara ja juróom benn jàngalekat xam naa leen fii ci ci ma Madiyana yoo xam ne ñenn ñi Louga lañ jógee ñeen ñi Dakar ñu tëj nañ waaw ndax nun war nañ ne rek Touba ci Sénégal la bokk ba lu ñu lu ñu def Ndakaaru def ko kees bu ñu dikkee Touba def ko dama ne Lamine wax dëgg wax fen sëñ Tuubaa li mu gantu ba tax koo dem ci géej gi beneen sëriñ bu ko gantoon ñu ñu ngi leen yóbbu duñ la fi wax li mu nangul boromam beneen sëriñ bu ko sa borom jaralan bu ñuy dem duñ la fi wax tubaab yi ba ñu ñu sëñ Tuubaa ci deret ba tax ñu dem ko mbañal ba fa ko yóbbu dafa nangul yàlla lu ko kenn nangulut teg yàlla fi ko kenn tegut moo tax ñu ne ko cas mel moom yóbbu waaw ndax dañuy dem ba léegi ñu fab sëñ Tuubaa mooma nuróoli ko ñaa xam ni dañoo noonu rek nu nu bi def baax na diine ji de naka jekk diine lislaam naka jekk ba fi nekkee ba bisub tey bii yàlla da daa ber ki addina bi ber ki yor ah, diine ji sëñ Saaliwu nag moonu boole woon wax nun ñii nu bokk dégg de sëñ Tuubaa nee na yéex la moon a saayir min hayaati dunya li muy firi mooy tubaab yi addina lu fi am njariñ lu ci yàlla def njariñ ba ci benn xob xam nañ ko luñ ca xamut tey seen xam-xama ci àggul waaye dañ ca sàgg waaye tubaab loo xool ba mu ko xamal ni baaxul njariñ amul niwu ci daal ni waaye nag ak wilaaya ak ak baatin lu ñu ci xam lu mu tuuti tuuti ka ko yor baaxut waaw léegi Senghor ba mu fii ne daa bëri woon yor ñu dénk ko addina bi duñ ko laaj suñu diine du du ci duñu ci jox xalaat ba mu defee code de la famille ak ak ak lu ñu koy waxee te planning familial bési bi ci sax mbàkk bi nan ba léegi mi ngi noonu doomi tool yëpp dañoo seeni lii mooy mooy walaabal bési boobu moo tax ba ba fii ma toog loolu loolu jàllut te ba ba mu daa ba ko suñu ceex laataa bind suñu ceex wax na ca tën diwaante ni kilifa yi diine yi nekk ci réew mi nangul nañ ko li mu wax ànd naa waaye nag nun loolu duñ fi bàyyi nun règlement d'intérieur bi xattul histoire yi ci la ñuy taxaw daal ni alhamdulilah li si ansala ala abdul kitaaba wala mi illahu wajan qayiban waaw nun mënunoo ànd ak ñoom ci lépp loo xam ne mën na noo mayu wér te diine ji ñu génn ci lu ciy soppi ñu ba ko ci te xalaati sëñ bi ñaan yi ñuy ñaan ak jàng gi ñu jàng alxuraan dañoo xam ni moo ji moo docteur yi li ñuy def bu ci bu ci barke doon màccit loolaa koy ubbi Saliou Ndiaye Touba mii moo doon jëwriñ si Saliou yor na la kan ab diir yor na ko ñaaru wéree dina dem Ndakaaru faju ba wér ni sëñ bi ne man xam naa ni docteur yi sax nee nañ ma wér naa waaye jàpp naa ni rek sa ñaan ngaa tax sëñ bi ne ko loolooy ñaar yoon ñaan ñaan day ubbi buntu clé clé faj xam xam fi may jaar ba nga wér day ubbi buntu lu mu la lu mu la jox donte benn spirit la nga wér waa ñaan yooyu ñoo ci yi fi mu ne li ñu bëgg lépp yàlla mën na ko daal di dogal léegi ci lu mat ci lu wéru semaine su boobaa ñu defee docteur yaa waaye amaana ñaan yaa ñaan ci wetug bëri lay jox docteur dox ci wetug sayir ñi ma bokkal kër Sëñ xam na ñaata ruug la fi Sëñ Saaliwu jot ca ku daanu ci guy ak côté fiir te teewu dañ lay yóbbu hôpital waa ana ñaan nga waaw ndax loolu mu ta waaw dama ne man sama bopp ak jëwriñ yi ma maasee leen kooraa 96 lañ sëñ bi wax ndax dañ ko fàtte lañ sëñ bi wax ndax dañ ko fàtte man lagan boobu maa may borom dañoo mujjoon wut menn mbar daanaa fanaanoo fan wéeri nit ñu kooraa wata bi da baagante du yóbboo ko ñëw maa ngi nii kooraa wu ma dañoo fàtte sëñ bi lam la waxoon fàtte wuñ ko ci njariñ ñu peste amal na ca dégg naa fii sax ku ko wax naa banaa mooy mooy ndege si Moussa Xasida ci audio yi waaye damaa jàpp ni daa jum Moussa xasida Mor Alima jur ndeyam Moussa juru ko te Mor mamee moom la dalan te nettali na ko ma dégg ko man teggi du ma teggi waxi buur waaye sun diine ji nag ba ma sañoon ñu fàttali ko ko te kilifa gën a ñu wax ci ak moom li ci des mooy alquran jii ak xasida yii li ci suñu tubaab xanaa dañ ko fàtte li xaari alquran yi xifsul baax yi wa xismatul baax yi man itlaaq ñuy jàng alquran yàllaa leen di wattu moo leen di musal te da di boyal waaw dama ne ana ki suñu tuwaa waxaan mu sàmm mi suñu tuwaa waxaan ne yow bala yàlla sàkk xasidaa tax waaye ki nga xam ne ba ko yàlla sàkk xasidaa tax suñu tuwaa woo ko ba mu ñëw mu nëpp ci loxo am ni ko yow saa borom xamal na ma ne xasida yee tax ñu sàkk la waaye kooku day bàyyi jàng xasida day bàyyi jàng xasida nañu bàyyi bu ñu waxee lii yëg-yëg la man xaqiiqa sariha ñaari yilimaan laa ki doon bu ma ci neex lay jiite suñu salu mbàkke la soog mu def loo ma du ma wax luy tàllum réew du ma wax luy luy luy yàqu tàllu bi du ma wax luy yàqum réew waaye alxuraan ji ginnaaw jéggi naa ne ñi ngi ciy tëj ay daara man danaa ci wax man uma daara de uma daara ju am indépendance nga fekk ci càttib suñ sooy bu lii nu nu suñ seex say def daara jee dara nag mu def ni daara ji sama yeneen daara yi càttib suñ sooy bu lii lu jënatul ma waa gii suñ seex def ay donga ak daaru tan fiil gee ak ak daaru daaru nahim ak ngaabu ak njurul sama yaar yi danañ ci mën a wéy benn kilomètre bu ñoroon gii suñ si di am njël wala suñ seex say wala suñ seex bu tali bu mën am waaye nag lii ñun ñëpp ko bokk ginnaaw man maa ngi dégg ñaar dañuy tëji daara wala leneen danaa ci teel a wax wax naa ci lu amal njëriñ ñëpp maa ngi ñaan képp ku ko jariñoo ba mu ci dugal menn pexe maa ko wax ci sama coobare kenn wax la wu ma ko lëkkaloo ma ci ak benn site lëkkaloo ma ci ak benn journaliste dama ko wax ngir wax la muslihoon a googo ak la suñu sooy waxal ne mag day defar ak bokk gu ma ci bokk nag waaw kay jaa ngeen